ne boo amee dëj sax duñ ci mën a ñëw nga daan gis ñoo xamee ne jaar ngeen fu ne ci àdduna boo amee xew duñ ci mën a teg seen tànk eh, ay relation yu bari commencé woon di yàqu-yàqu goo xamee ne dara jaru ko ci àdduna kon bu ñu demee tey ba bés bii nekk bés boo xamee ne bés bu am solo la ci histoire bu RTS mooy ñun ñëpp ñu bokk ndey bokk baay te xam ne RTS moo ñu mag xool suñu mag yi nga xamee ne démb ak bërki démb dañu fi nekkoon liggéey liggéey bu rëy ba tey lii nga xamee ne tey moom moo am mu am tey daal li ma mën a wax mooy peut-être que wax ji du bari mooy bésu sant yàlla la bésu booloo la bésu doon benn la bésu juboo la bésu joxante loxo la bésu aussi li sénégalais yi di xaar ci ñun ñu delloo leen ko ndax sénégalais yi wàccoo nañu ñun tey ñun li ñu war a def mooy fexe ba dellusiwaat indi ay contenu yoo xamee ne sénégalais yi télé bi ñu delloo ko ñi nga xamee ne mooy sénégalais yi parce que nag ñoom ñoo ñuy fay ci seen i impôt la ñuy fayee jàpp naa ne loolu daal mooy bésu mbégte la boo xamee ne vraiment mënuma ko natt man parce que gis naa fi ñoo xamee ne kër nga gëj ay ñaari at ak nangam. ndeysaan yu yàgg ñëw. waaw ñenn ñi buñ nag laxasoo sax dañuy jooy. Euh, te jàpp naa ne loolu ñun ñëpp benn lañ euh, benn gii ñu doon daal yàlla bu ko dara yàq ci àdduna. Euh, nanu booloo te xam ne ñun ñëpp dañuy dem bàyyi fi kër gi tey lépp jeex na ñu booloo doon benn jàppoo doole leen kenn ku ne li nga yéene sa borom moom nga yéene ko sa morom li ma ci gën a neex daal mooy relation yi yàqu woon tey ku ne di saafante. man loolu nekk na lu doy waar. maanaam booloo gi te boo xoolee RTS tey xam ne ah, buñ ne woon divisé wu na it tey RTS booloo nañ doon benn. ngeen di xaar ci Popale. li ñu xaar ci moom mooy mu uuf ñu ñëpp uuf njaboot gi uuf agent yi uuf ñi ne ci kër gi te xam ne yàlla moom la fi def mooy sunu kilifa kon nañu boole njaboot yërëm ñu aussi jàppale ñu taxawuñu loolu la ñuy xaar ci moom parce que RTS aussi jàpp naa ne ay professionnels ñoo fi ne ñoo xam ne nañ ay vingt cinq ans vingt ans vingt sept ans. man naa ci lim tey faama mii ma jàkkaar lool bi ma koy xam bi mu nekk ci télé kenn xamul kañ la kon RTS ñàkkul dara lenn rek la la ñuy ñaan mooy na boole njabootam euh, wax leen fi nga xam ne fa la bëgg yóbbu RTS ñu ànd jàppale ko ci parce que RTS bu avancé ñun la avancé la bu delloo gannaaw ñun la dellul gannaaw kon jàpp naa ne ñun li ñuy ñaan mooy ñun ñëpp nañu booloo doon benn jàppale Pape ale jàppale suñu bopp mais jàppale Sénégal jël télé bi ñu delloo ko Sénégalais yi ci continuer parce que fi àdduna toll télévision continue la waaw YouTube mooy chaîne bi gën a mag ci àdduna tey fa la lépp daje fii tey bu njëkk dañ daan xaar suba ci heure bii pour wane ko yéen gi ngi en direct ci Sénégal 7 euh, may nuyu ak sama frère Pape Ngagne Ndiaye di ko ñaanal yàlla.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 ndax lii am lépp tawfeex sëriñ bi mën a ko may. gën noo gàtt noo tawfeex bi.